jëf mbokku internet yu BG TV ñi ngi leen di nuyu bu baax euh, di leen jaare di leen jaajëfalati ci taamu gi ngeen taamu seen sit internet BG TV mbokk yi seetaan ngeen benn vidéo fan yële dégtal nañ leen ko muy suñu xarit di suñu confrère di Idali mu doon wax ci mbokkam ci xaritam euh, ci doomu ndeyam kooku di kan di Modou Amar di délégué ah mbokk yi tey kooku moo ñu indiwaat fii tey. bu ngeen gisee ba ñuy wax keroog am na lu nu jotoon a junj bu ngeen gisee jataay bi ngeen xam ne suñu borom def na jàmm alhamdulilah yàlla na yàlla dolli jàmm mu del si ñibbisi ci njabootam yàlla na fi fekk jàmm te yàlla defal ko jàmm mbokk yi tey moom la ñu bëgg amal waxtaan tuuti rek euh, mu am ay leeral yu mu am ak yéen naam am na yeneen programme yu nekk ci kanam yu mu war a jox dig daje ak yéen waaye lii day bokk ci rek ñu leeral tuuti ginnaaw ba mu ñibbisee ci njabootam ñu jox ko mu nuyoo ak yéen mbokk yi ñu dugg ci waxtaan wi Modou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay jëriñ di la siyaar bu baax di santaat sëriñ Touba rek ni ma koy waxee saa ne di ko santaat bu wér di santaat Serigne Saliou Mbacke mu Moustapha sama wasila di nuyu Serigne Mountakha Mbacke mm-hmm. mu yàgg fi lool te ànd wér ba naal yi mu am ci yoon wi. suñ borom mataleel ko ko mu fekkee lépp noonu lañ koy ñaanalee yeneen tarixa yi ñu ci mel ne Tiwaawan at euh, tarixa yëpp rek di ñaanal xalifa yi fa nekk ñu yàgg fi loolu te am ànd ko wér di nuyu sama waajuru jigéen di ko ñaanal moom it kàttanal ko ko fi ba ci kanam kanam di nuyoo mbokk jullit yëpp ak mbokki taalibe yi mm-hmm. waaw. jërëjëf nuyoo bi am na solo ñaani yàlla na ko suñu borom def ci barke Serigne Touba. Modou nga amoon jafe-jafe ba dugg ci prison suñ borom dogal nga génn bi mu amee nag bari na ay wax euh, version yi bari na waaye olof daf ne tungu ne du teew ñuy nat ci ëkk ñu laaj la suñu première question rek loolu lan la woon. waaw loolu moom comme li ma wax gars yi sànq rek bëgg naa dinaa ci leeral bu baax a baax a baax baax lépp ni mu demee mm. waaye dama leen ñaan rek mu bañ a nekk tey mm. ginnaaw ñëw ngeen sax ba jot kii duma leen mën a bañal yéen nii mm-hmm. ndax sama nit ngeen ndax wax dëgg yàlla mënu su leen a wax ci man lu ñaaw baa ngeen def ko kon bu ngeen ñëwee duma leen sañ a bañal dara waaye bëgguma woon a génn di waxat kenn dama bëggoon a toog Tuubaa gi siyaar sëriñ bi def yëpp bu ma ñëwee nag doo ko mën a waxat yéen waaye loolu moom bu ma bu ma ñibbee seet Ndakaaru ba ba ba dallu dinaa ci indi ay yaatal toogat yéen conférence de presse ba ci pare ba pare may leen kenn ku ci nekk interview waaw incha allah. ñu dégg ci internet bi euh, ñu baatal ci Wally Seck muy sa xarit loolu ban leeral nga nu ci mën a indil. comme li ma wax rek <laughs> wa sa waaye moom gars yi dañ koo sonal rek waaye nañ ko ci génne daal loolu yoonam nekku ci. xam nga mbir mi moom sama mbir la donc bi may liggéey at ki ma ko seqaloon Wally fekkeewu ko yoonam nekku ci. tudd nañ ci lu nekk gis naa man doon liir naa yu bëri sànq yu ma génnee tudd ay ceeb ñi tudd ay oto bu ma jaayan waaleet ay nangam nangam gars yi dañoo baax rek xam nga nag boo boo nekkee nit suñu borom def nga bëgg ko ba yemale woo ko dara ñu gis ci ay xew-xew mat yu bëri bu la rek faaw ñu dugal ko ci te man sama jëmm jàpp naa ne bu waalee amoon jafe-jafe wala ñu bokk benn jafe-jafe ma déchargé ko jël affaire bi aki moo ko que loolu nga def kon. déedéet dama laa jox misaal rek kon kooku duma ko tudd ci mbir moo xam ne daanaka yoonam nekku ci te loolu li ma leen wax rek bu ma ciy leeral dinaa ci indi lu leeral lañu ko waxat lañ ca bindat yooyu yëpp dara amu ci yoonam nekku ci waaw daa fekk ne nit nag boo nekkat moom mu nekk ci tolof tolof da ko war a nemmee ko seeti ko xool ca la mu ne waaw loolu rek la waaye yoonam nekkul ci mbir mi ndax bu ci bu bu ci yoonam nekkoon. yaakaar naa ne am na neneen nu muy demee yoonam nekku ci moom xamul sax waa ji ah. ki ma seqal mbir mi moom xamu ko hmm. donc yoonam nekku ci oto yoonam nekku ci ceeb waaye li man mosuma ko no après daal dinañ ci indi leeral daal. Ah. waaw dinañ ci indi ay leeral bu baax a baax waaye daal yoonam nekku ci. yoonam nekku ci gars ñu ngi wax rek. ñu ngi wax rek gis naa lépp hmm. te dégg naa lépp danoo baax rek ñoo baax rek mais yàlla na sëriñ bi leeral lépp. waali sama digganteen moom lu sëñ Tuubaa defar la doomu aadama buy dund mënu ci dara waaw bu doon nekkul lu sëñ Tuubaa defar bi ma duggee kaso lay yàqu mm-hmm. kon dañ naan mbiru àdduna moo ko tax waraloon mm-hmm. xam nga nekk naa ci biir di seetaan télé di gis ma may woy ci ay soirée yoo xam ne man fekkewu ma yëgu ma donc kon lu moom xam na ne Serigne tubaa moo nu boole xam na ko bu baax soxnaam it xam na ko mm-hmm. waaw. ñu ngeen demee nga nekk kaso ban taxawaay la amoon. bu bëri lu bëri bëri na mënuñu ko lim moom rek daal laa gisoon ci gàttal. Mhm. waaw ginnaaw ba sama rakk yi ku ci mel ne petit sama doom sax dafa sama doomu mag la mais sama rakk laa koy wooyee mhm. ndax sama xol laa ko def ku ci mel ne Baye Xaadim Amar mu kati at Fallou. Mhm. mu kati at euh, Mouxa tamit Baye Cheikh Amar. at Kara at sama mag jiili at ñeneen ñeneen mënu ma lim ñëpp ginaaw ñooñu yaakaar naa ne waale moom ah doy na waar daal soxnaam it <laughs> yi dañoo baax parce que Sëñ Saaliw gars yi dañoo baax mais dina baax incha allah. dina baax dinañ ci moo du macha allah di dundu ci dëkk bi macha allah nit ñi xam ko mu yor ay teraanga di ko defal ñu bari benn bis ñëw rek mu dem kaso guddi googu loolu lan la la def. waa comme li ma wax rek nee naa sànq gars yi junj naa leen ne guddi gi njëkk ci kaso. Mm-hmm. ku ko dul xalaat mu guddi gi njëkk ci bàmmeel loolu neex defal waaw ah, misaal gu ndaw la rek kaso misaal gu ndaw la ci bàmmeel waaw ndax boo duggee kaso sa première guddi loo jëful lu baax du la fa fekk comme bàmmeel rek waaw ah, ku ko dul xalaat nag loolu neex defal waaw ku ci mel ni idaal yi déglu naa yu bari yu mu yu mu def waaye moom defarub Serigne Saliou booleb Serigne Saliou ndax ci liggéeyal Serigne Saliou lañ xamante donc kooku moom bu nu xamante ci liggéey liggéeyu Serigne Saliou xamante waat ci ay canti Serigne Saliou yoo xam ne sama ay frère ñoo ko doon def mu xam sunu famille bu baax. Euh, gis naa ko mu génn ay leeral ba ci ay waykat yoo xam ne di wax lu bari dégg naa ko waaye loolu mu wax dara du ci dañ waaw sànq laa seetaan vidéo yëpp seetaan naa lépp déglu naa ko muy ku baax bëggal ma boppam ndax sëriñ bi waaye na xam ne daal bor la sama bis bi daal nattu gi daal moom xam naa ne bor la ci sama diggante Waly bor la ci sama diggante Soxna Aïdara mm-hmm. bor la ci sama diggante sama rakk yi ak sama xarit yi ak sama mag yi waaw sama waajur wu jigéen nag moom xam nga di wax sa waajuru jigéen baaxoo ma ni ko def ndax moom xam na man xam naa ku ne xam na waajur li mu mel ci ci doom mm-hmm. doom it ni mu mel ci waajur donc seeni ñaan at moom liggéeyam mm-hmm. at def lu baax daf maa fekk si woon ci kaso bi waaw ndax yaakaar naa ne bu liggéeyul woon moom sama waajuru jigéen tolof tolof yu bëri dina dina dina doy waar daal waaw dina doy waar ndax sama baay bi muy wàcc ci kaso la ma fekk bis bi may am li wane ne man sama kaso gi dama cee jàngat maanaam bis bi may am deux mois la sept bi may am deux mois xam nga def naa un mois ñu doog maa àtte bis bi dellu si la sept bi may am deux mois ci la sama baay wàcc ci bis bi bis bi ma am deux mois net muy mercredi mm-hmm. ñu def ba mercredi premier septembre mu nekk sama anniversaire ma génnaat tamit mercredi waaw kon loolu ak cant la jàngat la waaw ba pare comme ni ma ko waxee sànq nekkal sëñ Tuubaa daa wóor nekkal sëñ Tuubaa daa wér ndax boo nekkalee sëriñ bi mu nekkal la fépp ndax weer wii ma génn billaahi mbégte laa am ndax lo 11 novembre 1902 la sëñ Tuubaa ñibbisi ci la amee liberté ci digganteem ak noon yi. man maa ngi génn le 3 novembre. onzième mois mille neuf mai deux mille vingt et un donc loolu man ak cant laa ciy def di santaat sëriñ bi bi mu dugalee ci weeram woowu ma bokk ci man tamit di weere waaw loolu daal am naa ko ci ak cant waaw di santaat sëñ feex Mbaay ndax moom Tuubaa lu jóge fajar ma ngi woon bintu prison ba di ma xaar ngir jël si ma mu leer ne la ñi la sëriñ bi booleel rek ñoom la la sëriñ bi booleel waaw ñi la mbiri àdduna booleel rek ñoom noonu la àdduna booleel waaye nag li ci kanam rawuli bët sunu sunu sunu jàkkaarloo waatee ni ma ko waxee gaay naam yu bari yoo xam ne bu ma ko waxee sax Sénégal yu Sénégalais yu bëri dinañ bàyyi ñooñu waaw. dina am loo xam ne mbokk internet yi dinañ ko soxla ndax bëgg nañu nga leeralal na tuuti rek ndax dégg nañ benn interview ci ku ne Modou Amar euh, du mbokk Cheikh Amar ñu famille du rakkam safooram la fa woon nangam nangam loo ñu mën a leeral ci noonu. si Amar du ma safooram de da si Amar am nañ ay safooram. waaw loolu xam nga ki ko wax moom. daanaka bugg ma wax ci ay mbiram. waaye daal ñi mu sonal ñëpp. bu ma génnee ba wax ci moom. xaw ma maire lay lay lay lijjanti xaw ma lu muy génnee waaye chef de quartier sax du ko doon. barke Serigne Saliou ndax lépp sunu kanam la. du ma mbokk Cheikh Amar du mbokkam laa rakkam laa du ma rakkam intéressé wu ma Cheikh Amar gënu ma gënu ko te amaana sax gën gi ñu koy xool mosuma defal dara nag dama koo bëgg di ko tarbiya ndax mag gi mu doon ci man ak deret ji loolu rek ma booleen moom. lu ma am maa ko ñafeel sama bopp ba may jëndal sama yaay xar xaw ma luy xaalis xaru tabaski kenn joxuma ko kër gi mu dëkk di ko fay kenn joxuma ko li ma di ko may it kenn joxuma ko. ñi ma may xaalis ñi ma dala may xaalis yëpp nañ seen xel la ndax man li ma leen may lépp lu leew la lu ma ñaq la mu am ko moom ko waaw kooku nag daa baax di wax rek waaye li ma xam ci moom dinaa ko wax te di ngeen ma ciy posé waat ay question ci ci ci su ma su ma yaatalaat at yéen te dinaa leen leeral leeralal lu bari ci moom wax leen ki mu doon ngeen xam ko sénégalais yi tamit xam ko daa baax di wax rek waaye ba ñu dagg rase yi maa ngi taxaw moom waaw defoon non dinañ ci leeral yow kay na sa xol sedd ah. waaw loolu kay maa leen ko wax yéen daal na fexe ba bu ngeen may laaj mm. bu leen ragal waaw ah, ah, kon jeex na man xam nga du <laughs> euh, ragal waaw du ma ragal te daal bëgg naa ñu xam ne daal mm-hmm. Wally Seck moom mm-hmm. vraiment je mu ko bëgg trop waaw nañ ko bàyyi xel te sëñ Saliou boole na ma soxnaam ci biir prison bi loo xam ne nekk lu may nettali léegi waaye bu ma ko nettalee at melokaan bi ma ñëwee yaakaar naa ba ma ko ba ma ko géntee ca su bëgg la petit mi xëy prison indil ma xasida gu sëñ bu nekk te yëgoowuñ ci waaye dinaa ci leeral bu baax a baax a baax mm-hmm. waaw. du woon moom kese nga doon jëflanteel ci woykat ci showbiz nga gis ko moom kese ñeneen ñi ci des déggoo leen gisoo leen loolu nu mu la def. non Waly man moom du affaire du showbiz wala ay ay wayat yooyu déggoo li ma la wax lu sëñ waa defar la waaye 2016 bëgguma woon a wax sax di ci yooyu mais 2016 bi mu ñëwee xel kom xaw ma fàtte na ko xaw ma fàttewu ko waaye la ma ko waxoon dégg na ko fii ëttub sëriñ Saliou la boo daggee benn dugub mbool bi dugub bi xam nga benn pepp dugub bu nekk day jàpp ci mbool jàppal ne mbooloo mi noonu lañ lay toppee ëllëg. ndax loolu am na wala amut nit ñëw fa di xeex mm. ma ne ko fii ngay fayee ba faaw ndax fayut waaw kon <laughs> bërëbu sëñ Saaliw moo mel noonu waaw bërëb waaw waaw muy lu muy lu wér loolu yàgg na 2016 mm. la woon donc kon moom taalibe la dégg naa na bi ma nekk ci kaso bi yu bari yu bari gars yi yóbbu nañ ko fu ne waaye ñàkkoon na ne ci biti la rek waaw. waaw doon am waaw. ci biti rek xam nga waale yi suñu borom da koo boole ay nitu jurbel te jurbel ku ragal du fa dëkk te ku sëñ Tuubaa fees ci moom rek fay dëkk waaw te yaakaar naa waali soo dee jumul may waa jurbel la euh, Moustapha yàllaay baax yaa waa jurbel la mm-hmm. ak ñoom sëñ Mbacke Cheikh Mbacke waa Jurbel lañu ay sëñ Fallou waa Touba man waa Jurbel laa te foofu ku sëñ Touba feesut ci yow doo fa dëkk waaw ay tànneefu sëriñ bi ñoo fay dëkk te du ñuy ragal loolu la ko yàlla wërsëgalee waaw te ku nekk sañoon naa am ñooñu te mënuñu ko waaw lañu xam daal ne moom waali moom suma digganteet moom. xanaa moom moom moom moom moom moom mu dem ba ba ba ba ba def leneen waaye fii maa ngi dund day ratax rek te kenn du ko wax lu ñaaw ma ne fi waaw loolu moom incha allah na ci xel dal bu baax waaw. nga dund prison mu bari yu ñu ciy wax jafe-jafe yi ak metti metti di nga dund ko di nga ko mën a di ñu ci mën a leeral lu bari pour ñiy seetaan. ngir autorités yi gën a bàyyi xel ci prison yi gën a jàppale détenus yi. waaw gars yi moom prison yi moom dinaa ci wax lu lu yaatu dinaa ci wax lu yaatoo yaatu yaatu ndax après daal xam nga temps bi mayuñu pour toog di kii waaw siyaare yooyu noonu mais su ma ñëwaatee daal moom incha allah Touba Dakar dinañ ci gën a waxtaan bu baax a baax a baax a baax a baax loolu wér na ma ndax am na ñu ko soxla. Hmm. te it li ñuy wax ci garde yi nekk ci kaso yi. di naan di leen teg ay baat yu ñaawat yooyu. dara amu ci. waaw yu baax a fa nekk. man bi may ñibbisi rek chef yi dañ maa gunge ba ci bunt bi. ndax la la may loolu mooy ñoom seen oyof ak seenu mbaax. donc ni daal nam la séenee rek la lay la ñu wax. loolu kese am ci kaso yi. donc dinañ ci gën a yaatal. ndax na yu bëri yuñ fa jàngat. te am na yu bëri yuñ fa gis. yoo xam ne buñ ko waxee yaakaar naa ne gars yi dinañ bàyyi xel kaso bi bu baax a baax a baax a baax waaw. cee ñu bàyyi la nga tàggoo rek ak mbokk internet yi du ñu jël sa temps lu bari yaa ngi door a ñëw. waaw ñoo ngi ñoo ngi santaat sëriñ bi rek comme ni ma ko waxee santaat ko bu baax a baax a baax di santaat sëriñ Tuubaa bu baax a baax a baax a baax di wax na nag ah mbir mi diisoon na waaye sëriñ bi da ko oyofal amaana gars yi ñoo ko diisal waaye sëriñ bi oyofaloon na ko bu yàgg. ndax sama mbir yi moom dafa diisoon lool ndax pexey noonu moom du jóg te ku nekk day ñaan yàlla ay noonam sax di gën a yokk ndax mooy tax nga jëm ca kanam sëñ Tuubaa gis nga ko ay noonam yonent bi gis nga ko ki njëkk dugg kaso di ab yonent luñ ko tuumaaloon du viol biñ demee ba gisu ko ñu ko ci moom te tëdd na juróom-benn at xaw ma juróom-ñaari at doo ko génn te taxul ñu ñu fekk ca moom lañ ko doon tuumaal gis ci tamit lu nekk mbir mi moom moo demee noonu daanaka sant rek waaw xam naa ni daal ñi ci kaso yi moom bëgg nañ sëñ Tuubaa te gëm nañ ko détenu yi ci kaso bi bëgg nañ sëñ te gëm nañ ko te bëri nay murit mhm. waaw bëri nay murit bu baax ñoo ngi leen di nuyu ñoom ñëpp mhm. di nuyu sama xarit yi ndax génn ci kaso rek gis say xarit gis say mbokk loolu loolu dara gënu koo neex mhm. dara gënu koo rëy <clears throat> ndax comme ni ma la ko waxee sànq rek génn mënoon ngaa génn rek xool gauche xool droite gisoo sa mbokk gisoo sa kenn wala ñu jàpp la naan cam xamoon nañ ko yàgg na koo def yooyu yëpp suñu borom nattuwuma ci ndax su ma may doog a nattu ma dugg ci ci ci bërëb boobu te ba amaana ni mu duggee ci bërëb yëpp ay tuuma la rek ni nu ko waxee. Mm-hmm. te dinañ ci leeral bu baax maa ngi sant ñëpp nag ñi ci jàpp at ñi ci jàppul mm-hmm. daana leen sant di leen gërëm di baalu ñëpp àq nag. képp koo xam ne rek ameel naa la àq nag ma ko baal ndax xaw ma xam damay faatu tey xaw ma suba te bëgguma faatu di baale koo xam ne ameel naa ko àq donc maa ngi leen di baalu àq yéen ñëpp yéen it maa ngi leen di nuyu di leen siyaar ndax boobu léegi ndeysaan eh, yéen yàlla baax na daal yàlla bor la daal te dinañ ko dinañ ko dinañ ko tawféexe bu baax a baax a baax di nuyu sama xarit yi sama rakk yi ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn kenn kenn wax dëgg yàlla waaw ayca jërë ngeen jëf mbokk yu internet yi xam naa ñu jox leen dig daje rek dina organiser benn conférence de presse incha allah lii lenn la rek ci lu ñu leen doon dégtal comme mi ngi door a ñëw ngeen xam dara ci li ko taxoon a dugg foofu mu génn ci jàmm alhamdulilah jërë ngeen jëf mbokk yi.